ay revendications yu bëree bari genre amoo leen woon toilette. Mhm. seen condition de vie dafa metti yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci wàllum transport waaye Kajoor mu mel ni bi élection yi passé ba léegi kenn déggu leen. Mhm. xanaa seen situation léegi dafa amélioré wu. non situation transport mënul saafaraw parce que ñi ko ñi ko jiite ñoom bëgguñu mu saafaraw xam nga transport dafa am ay mbir yu ko tënk dafa am benn lobby bu ko tënk lobby bi ko tënk fekk trans bëgguñu bëgguñu transport avance parce gis seen bopp. lobby bi ñan ñoo fi ci nekk. lobby mooy sunu mooy sunu sunu sunu papa yi fi nekk nii rek xam nga ñoom yàlla sunu borom dogal na ay jàmbaar lañ liggéey nañ. amee woon ngeen leen fi nag de bi fi njëkkee ñëw. <laughs> waa moom laa lay wax. <laughs> yaa ngi ak ñoom ba léegi. ñoom ba léegi xamul tax euh, kenn bañul ku liggéey. Hmm. soo ji soo soo soo nekkee mag da dem da dem nga bàyyi xale yi ñu àggali parce que loolu loolu moo loolu moo jaadu. Hmm. parce que tey jii transport ali allure bi muy daw paa yi attanuñ ko. Hmm. allure bi transport daw na ñoom paa yi attanuñ ko mag baax na ci réew de. waaw mag baax na non si réew li mu baax si réew la moo war toog ñoom ñu war a dem war ñoo guider jàppale ñu dimbale ñu pour ñu mun a atteindre tamit sunu sunu ay objectif ak sunu mission si transport parce que tamit am nañ si ay mission am nañ si ay objectif hmm. waaw transport moom góomam du mos a ah góob yaakaaruma ko de. amul lu munul sotti dafa bëri ay jafe-jafe dafa bëri jafe-jafe trop trop trop amul lu munul sotti te amul amul ay ay lu ñu la wax dëgg dëggantaan ji dëgg gi si nekk. waaw suñ toogee duñ ci wax dëgg duñ ci xuus xuus yi am solo dafa am ay jafe-jafe dëggantaan yaay. ayca ñu ñëw ci jafe-jafe yi comme ça ñu mën a dugg largement ci waxtaan wi.